bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawalah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci ngën ji mbindeef muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisub ajjuma bu tedd bi di ñaar fukki fan ak benn ci diggiw tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar fas yéene delsiwaat di laaye biir sunu bopp di laaye biir tam sunu mbokki taalibe mbokk yi jëf yi nga xam ne dañu koy jëf la ko war a lal ba sunu borom nangul ñu ko mooy al ixlaas mooy lépp lu nit di jëf walla mu di ko wax na yàlla rek a tax lépp looy jëf bu ca séentu dara bu ca leble bor bu ca fayu bor lépp looy wax bu ca séentu dara bu ca leble bor bu ca fayu bor waaye na ko def ngir jëmmi yàlla sunu boroom subhaanahu wa loolu nag day lu jafe-jafe dema dem ba nga xam ne lépp da nga koy def ngir yàlla kenn du ci am ab cër day lu jafe doonu lu yomb moo tax am na ku ñu laaj ci nit ñu baax ñi ne ko lan moo gën a jafe ci bakkanub doomu aadama mu ne ko al ixlaas mu ne ko lu tax ixlaas jafe mu ne ko bakkan da caa amul dara moo tax bakkan lu ñëw day bëgg séddu day day bëgg a am wàllam kon soo ko ko xañee day metti ci moom kon nag li gën a metti ci bakkanu doomu aadama mooy ixlaas moo tax danga gis nit mu nuru lool borom pëstéef te amaana bu ñu ko jeexoon ba ci biir leneen la ñuy gis lu bokkut ak ixlaas ixlaas nag te mooy lépp looy def di ko wax mu sel yàlla rek a tax sunu boroom moo ko santaane ci alquranul karim wax na ne yow muhammad wàcc naa ci yow alquran ci dëgg kon na nga jaamu yàlla te soo koy jaamu na ko sellal ndax diina ju sell moom la yàlla soxla inna anzalna ilayka alkitaaba bilxaq fa abudillaha muxlisan lahu ddiin ala lillahi diinul xaalis waxaat na ne yow muhammad waxal ne yàlla laa jaamu te damay sellal sama diine yéen nag su ngeen ne jaamu leneen lu dul yàlla yéen a xam qulillaha abudu muxlisan lahu diini faabudu ma shitum min duuni doomu aadama na xam ne jëf ju jëf dafa am biir ak bitti mi ngi mel ni yëri yëri yi nga sol rek yëri yi dafa am biir am bitti jëf ji itam dafa am biir am bitti biir bi mooy nanga fexe ba li ngay jëf na koy yéene ju sel lal joo xam ne yàlla rek mooy tax loolu mooy biir bi bitti bi nag mooy li ngay jëf bu ñu bu ñu la xoole na dëppoo sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yéene ju sell ju lal lal jëf ak dëppoo gu mu dëppoo ak sun na loola mooy jëf ji sunu borom soxla bu dee bu jëkk bi nga xam ne mooy ne ci biir moo tax xadis ba waxoon ne innamal amalu binniyaati jëf yi mi ñi ngi ko aj ci yéene yi bu yéene ji sellee jëf ji day baax bu dee bitt bi nag mooy jëf ji nga xam ne day dëppook sun na moo tax ba xadis ba waxoon ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf-jëf joo xam ne dëppoowul ak sunu mbir dañ ko koy delloo yaar yooyu nag bu ñu delloowaat ci alquran sunu boroom da ko ca dëxëñ ci benn laaya wax ne ku jébbal boppam yàlla te rafetal la muy jëf na xam ne euh, jàpp na ca buum ga gën a dëgër muy ku jébbal boppam yàlla kooku mooy ki nga xam ne jëfam da koy sellal ngir yàlla te koy rafetal mooy mu dëppale ko ak sunna kooko jàpp na ci buum ga gën a dëgër wa man yuslim wajhahu wajhahu ila wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati l wusqa moo tax sëriñ bi waxoon ne wa xassinil xidmata aydan bi ittibaa ala dawaami wa tarki l am na ci saxaaba yi koo xam ne ba muy firi laaya ja li lu yabluwakum ayukum ahsanu amala dafa wax ne axlasuhu wa aswabuhu yàlla dafa wax ne dama leen di nattu di seet ku ci gën a rafet jëf mu moom mu firi ko ne mooy jëgën a sell ak ñëg ak jëgën a ñu ne ko lan mooy la gën a sell ak la gën a jub mu ne la gën a sell mooy la la nga xam ne yàlla rek moo tax waaye la gën a jub mooy la nga xam ne dafa dëppoo sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moo tax yàlla wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saaliha te mooy na dëppoog sunna wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada te mooy la muy jëf na yàlla rek a tax nit nag mën nay jëf loo xam ne bu ñuy xool ci kaw gi day mel ni jëf ju baax la waaye wax naa sànq ne soo ko jeexee ba ci biir ndeke du jëf ju baax la koy firndeel mooy ca jamonoy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am mbooloo mu daje woon ñëw laaj ku ndigal ne ko dafa am ñoo xam ne seeni kër dafa sori jumaa ji ak màggat ñeek ñu lompoñ ñi ak guddi yi nga xam ne day taw wala muy sedd ñu bëgg a tabax nag jeneen jàkka joo xam ne dañ koy def ci beneen barab su ko defee ñi mënta egsi ci jumaa ji di fa yem xam ngeen ne loolu soo ko déggee day xalaat bu rafet waaye bam ci joxee ndigal ba ñu ko tabaxee ba mu sotti ñu ñëw ci moom sàkku ci moom mu teew fa julle jumaa ja ba mu koy waaj alquran dafa daal di wàcc daal koy tere ndeke booba ay naafiq ñoo tabax jàkka ja bëgg di fa daje ñoom ñoomu neen di fa tër ay pexe yoo xam dañ ci nasax lislaam yàlla nag xamal ko nag sang ba alayhi salaatu wasalaam ne ko walladina taxadu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu kon am na xam ne ña ngay tabax jàkka naara lu baax lañ ci jublu màggat ñi ak ñu lompoñ ñi ak suy taw ak bu seddee yooyu lañu teg ci say loxo ba nga defee ne dëgg la fekk nag lu nasaxal lislaam lañ bëggoon di ko nas ca jàkka joojee ne ko nag laa fii fiihi abada bu fa teg sab tànk bu fa dem kon gis nga ne tabax jumaa ni mu nuroo loo xam ne lu baax rekk la ndeke leneen mën na caa rax kon ca jamonoy sang ba am na ñoo xam ne defoon nañ ko te leneen da caa rax lu mel ni jihaad fi sabilillah ak xeex ni mu méttee ndeke am na ñoo xam ne suñuy xeex yàlla taxul ñuy xeex am na ku musa laaj yonent bi ne ko ar rajulu yuqaatilu lil maghnam war rajulu yuqaatilu li yudkar الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا

sunul إلا رسل السلام أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله dafa am ku laaj sang ba alayhi salaatu wasalaam ne ko ñiy xeex ci yoonu yàlla nit ki xeex ngir bëgg bu ñu notee noon yi bay séddoo alal ja am ca wàll kiy xeex ngir bëgg ngir bëgg ñu gis ko gis nam mane kan moo ci am yoolub yàlla mu ne leen kii xeex ngir yëkkati baatub yàlla kooka rek mooy am yoolub yàlla ar rajulu yuqaatilu lil maghnam walrajulu yuqaatilu li yudkar walrajulu yuqaatilu li yura makaanu fa man fi sabilillah qaala man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al ulya moo tax ñu ñu war a xam ne kon looy def na na doon yàllay kese sidna ali ibnu abi taalib mos nay nekk ci xare di jihaad ba jekku am noonam ba tër ko ba fab jaaseem waaye noon bi ne xaax ne ko tëf ci xarkanam mu daal koy wàcc ba mu ko wàccee ñu ne ko yow danga nga jekku sab noon waroon koo jekkali lu tax nga wàcc ko mu ne bi mu ko jëkkee jekku booba noonu bi yàlla laa jekku waaye bi ma tiflee samab noon laa jekku te waruma rey samab noon daal koy bàyyi kon gis nga ñoom lépp lu ñuy jëf pas-pas rek moo koy lal looloo tax sëriñ bi wax ne yàlla amul soxla ci li feeñ waaye li ci biir xol bi loolu la yàlla soxla fa rabbu yanzuru ila ma batana wal xalqu yanzuru ila ma alana nit ñi moom li feeñ rek lañuy xool boo gisee lislaam nag narga nit ñi ci ixlaas bëgg ñépp am ko mooy adduna si ñu nekk su ixlaas amul dara du jekk jafe-jafe yi nekk ci àdduna yëpp la ko waral ak la ko lal mooy ñàkk ixlaas mooy euh, loo xam ne kon lu yàqu moo ko yàq boo demee ci kër bu euh, ixlaas amul ñaari way dencante seen diggante du baax boo demee ci euh, diggante kilifa ak njaboot su ixlaas nekkul ci seen diggante ànd ba du baax bu dee mbooloo mu ànd ixlaas moo koy lal seeni xol yàlla kese nekk ca wala seen ànd du baax kon lu mu mën a doon ci àdduna rek ixlaas moo ko war a lal su ko defee mu baax ixlaas nag am nay màndarga yoo xam ne moom lañ koy xamee képp koo xam ne da nga jóg laxasaayu di góor góorlu di liggéeyal yàlla wax ne da liggéeyal sëñ bi te bëgg siiw bëgg ñu xam la nanga nga seetaat sa bopp na nafaraat sa pas-pas na nga fóotaat sab xol ndax kii def ngir yàlla dangay xam ne yàlla amul kumpa kon soo bëggee siiw bëgg nit ñi xam la xam la ngay def na nga seetaat sa bopp kon nit kiy liggéeyal yàlla du wut siiw am nituk yàlla kuñ doon wax Ibrahim ibnu Adham mos tañ koo laaj ne ko ndax sab xol mos naa sedd bis mu ne waaw bis bi sama xol gën a sedde mooy dama doon tukki ba àgg cib dëkk fekk mu guddi awma fu xawma fa kenn ma jubal ci jàkka ja ubbi jàkka ja daal fay tëdd di dallu bilaal ji ñëw ci fajar di noddu si fekk ma tëdd xamul may kan mu jàpp ci sama tànk diri ma di ma wat ba ci bitti mu wàcc ma fa defe ne ku àndul ak sagoom la umpule gi mu ump umpule euh, ba tax mu di ma wat di ma génne keroog la sama xol sedd sedd boo xam ne mosu koo sedd kon gis nga moom fa mu toll ci suñu borom umpule gañ ko umpule ba di ko diri moo sedd xolam kon nit koo xam ne da ngay def ngir yàlla foofu nga war a nekk waaye doo wut a siiw doo wut ñu xam la siiw nag suñu borom moo koy nattoo ku ko soob ndax ñi mu yónni kenn gënu leen a siiw ay xejjam kenn gënu kenn gënu leen a siiw kan moo gën a siiw borom pàkk bi ñu toog kenn gënu koo siiw waaye ndax sàkku na ko ndax wut na ko déedéet kon deesu ko wut deesu ko sàkku kon beneen màndargam mi ñu xamee ne kii am na ixlaas wala déet mooy nit ki day tuumaal bakkanam doo def dara ba defee ne da nga xadd kaaba ki loo def na ko xeeb ndax nit ki li ko waral digganteem ak boroomam la ci ëpp xamu ko lam ci xam akus néew la ci ëpp munu ko lam ca man akus néew la ci ëpp jëfu ko lam ci jëf akus néew la ci ëpp amul ixlaas la ci am ixlaas ndax sunu borom nangul na ko ko wóoru ko moo tax am na ci boroom borom borom bu mag ku jege yàlla koo xam ne mu jëm da doon jooy ba muy jooy am ñu ko seeti ne ko yow looy jey jooy te lu baax lu mat a def def nga ko kayfa tabki wa anta qad sumta wa qumta wa jahadta wa tasaddaqta wa xajajta wa atamarta wa allamta wa dakarta lépp lu mat a def def nga ko julli nga woor nga jihaad nga sàkk nga sarax aj nga umra nga jàngale nga yare nga kon looy jooy looy jooy mu ne leen li ma def lépp ana lu ma wóor ne suñu boroom nangul na ma ko ndax yàlla moo ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla nee na ña ma jox sama cër ñooñu lay nangul ndax wóor na ma ne jox naa yàlla ab cëram ba ko ñetteel moo di soo amee ixlaas la ngay jëf danga koy nëbbu jëf ja a nëbbu moom la sunu borom gën a soxla mi ngi mel ni fondu mang cib tabax fondu mang bi kenn du ko gis te kat moo yenu tabax bi fondu mang bu dëgërul tabax du dëgër kon ixlaas dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne lu baax la muy def da koy nëbbu du bëgg kenn xam ko waaye soo dee bëgg jëf su mbooloo mi teewee nga jëf waaye soo wéetee doo jëf na nga seetaat sa bopp ba ca tege moo di nit ki liggéeyal yàlla laxasaayu ne damay liggéeyal sëriñ Tuubaa ne ca kanam ak ne ca gannaaw ñoo war a yem fi yow koo gis muy xëccoo jiitu na seetaat boppam nit koo xam ne da ngaa sellal fuñ la teg rek danga naan fii la moo tax xadis boo wax ne tuuba li abdin axidin bi inaane farasihi fi sabilillah ashaasu rasuhu muxbaratun qadama in kaana fi saaqati kaana fi saaqati wa in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasati nee na texe ñeel na jaam boo xam ne day liggéeyal yàlla waaye fuñ ne ko fii rek foofu lay yem du xëccoo dara du xëccoo dara am na xare boo xam ne bi ñu xaree ba noppi sidna Omar da laaj ñi faatu ci xare bi ñan ñan la ñu koy limal di ko limal ne ko nag am na ñeneen ñoo xam ne xamuñu leen mu ne Omar xamu leen waaye yàlla xam na leen kon nit koo xam ne day wut euh, day jëf na fexe ba la muy jëf boom ci am soxla na ko nëbbu ndax sëñ bi nee na fa laysa yuxniika ridal xalqi isa lam turdi mawlaaka faxit an zalida yàlla bu la gërëmee sa lépp baax bu la nit ñi meree tam du la wàññi dara waaye nit ñi buñ la gërëmee te yàlla jéppi la du la jariñ dara kon ixlaas day bunt bu yaatu boo xam ne bu ñu delsee gën koo yaatal xam ngeen ne fan yi ñu weesu nag muy keroog àllarba dañ doon fàttaliku bis boo xam ne mooy ndamu lislaam ndax sëriñ bi ba ñu koy génne réew mi dañoo bëggoon faytaalub lislaam bi waaye suñu boroom yëkkati ko ba nga xam ne ba muy dem bu doon weer bi mu delsee jant la ñu defal ko ngan gu rëy ñu doon fàttaliku bis booba nag keroog àllarba kon bis boobu ñu ngi ciy ndokkeel sëriñ bi di ci ndokkeel lislaam bépp waaye di ci ndokkeel njaboot ga nga xam ne ñoo ko doon ganale mu njabootu maam Cheikh ci bis ba itam am leneen lu xew lu dal ci kaw lislaam dal ci kaw yoon wi dal ci kaw ci kaw sëriñ bi muy kenn ci njaboot gi di bokk ci sunuy kilifa wàccu liggéey kooku tam ñi ngi koy ziyaare sëriñ bi di ko ziyaare lislaam bépp waaye di ko ziyaare nag ahlul quraan waa alquran ñoo ñàkk kon nag yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana jë gën a kawe ma annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin wa xasana ulaika rafiqa yàlla na yàlla gën ñoo sàmmal sëriñ bi ba lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale ci sagoom te nu ànd koog moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا أيها الناس تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا wazinuu bi miizaani shariati jamiica acmaalikum wa maa waafaqa minhaa qustaasa shariati faduumuu calayhi wa maa xaalafahu fatuubuu minhu wajtanibuuhu واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعم لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك fa kayfa bima ada dalika min anniami fi jamii ma xalaqahu allah fi badani wanniami alwasilati ilayhi fi kulli waqtin ala tanawwuiha wa ixtilaafi ajnaasiha اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله وعظمته القلوب والخواطر وتكل في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن أما بعد فاعلموا أن عبادة الله هي سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح قال تعالى wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun wajtahiduu cibaadallah allaa yaraakum mawlaakum haysu nahaakum wa allaa yafqidakum haysu amarakum wa fi lxadiisi almuhaajiru man haajara suu walmujaahidu من جاهد نفسه وهواه واغتنموا في شهركم هذا النزر القليل منه الباقي فإنه أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو فإنه kulluhu waxtu raxamaatin wa atiyaatin wagtanimu alxayra alaziim waamalu liyowmin laa yanfacu fihi maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin saliim qaala allahu tacaala faman yacmal مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غياء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 allahu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 ربنا السلام